مع عيوبي ومع عفاسي من قادني سكور في أنفاسي yëg sëtam yi ni leen li ma sëñ Tuubaa jiital ci yéen dama koy ànd ak yéen rek ci kaw ci kaw jiital gi mu ko jiital ngeen topp ma bu ma jiitoo waaye man de bu ngeen ma jiitalee dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi ma ko def mukk waaye bu may dox it di leen geesu rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seet seenoo seen gisuma leen it ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jëdal topp ci yéen waaye duñ tàggoo mu xulubu ma ولا يلاقون ما راموا ولا البابا ينقاد لي كل من رام الكرام نونا ولا خرا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 ñaan mu yàgg fi loolu te gën a wér ak jabootu Serigne Touba gépp eh, di ñaanal sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootu Serigne Saliou gépp loolu ci ndindu actu bi nga xam ne moom lañ jàkkaar loolu tey képp koo xam ne yaa ngi ñuy gis di mbaa ngay dégg sunu kàddu ñu ngi lay ñaanal sunu kàddu fekk la ci jàmm eh, buntub sëriñ Fallou it ci njaboot gi ñëpp ñu ngi koy ñaanal muy sëriñ Abol Baraka ak njabootu sëriñ Fallou Mbacke gépp di bëgg lool nag ndax day buñ tollee ci silqanda muy weer wi nga xam ne sëriñ Touba moom la feeñoon fële ci njaareem muy 1915 ñu toll ci jamonoom euh, ñu sant ñu ci ab liggéey ci site bii nga xam ni kenn ci njabootug sëriñ Fallu Mbàkke moo ko moo ko taxawal ngir bëgg a liggéeyal lislaam kon danañ ci bég lool ndax wa inda sikri saalihina tansilu rahma ndax bu fekkente ne fàttaliku gaañu baax ñi ci la yërmande wàcce kon di ko def saa sune da koy mat ndax ñoom seen waxtaan wi ñu leen di waxtaane Euh, dadul jeex ndax li tax du jeex mooy seen jëf seen melokaan seen dundin wu tedd saa su ne mën nga cee jël ab dog indi ko ba àdduna tukki du jeex ndax seen dund daa feesoon dell ci lépp lu baax njabootug sëriñ Tuubaa gi nag dinaa tënk benn tënk bu gàtt te bëgg naa ñëpp jariñoo ko koo ci tudd turam rek mel na ti tudd nga ñëpp waxtu wu ne nag day am jamono joo xam ne day am kuñ cay fàttaliku ndax ca la mbiram di tollu ca la waxtoom di toll tey nag ñuy fàttaliku koo xam ne mooy juróomeelu xalifab Serigne Touba di a Cheikh Salih ñun ñi de wax ak yéen lépp lu nit gis ñun ba di ko rafetlu lépp moo ko def ci ñun bu dee njàngum xam-xam li tàmbalee tasawur sixaar ba fi may fi njàng di yem lépp ci ronam laa ko jàngee kon ñu ngi leen di eh, seereel cant gu ñu ko cant bu baax eh, nit nag eh, booy waxtaan ci moom te am dara ci tàmbaleem mën nga faa tàmbalee waxtaan nag li muy neex neex nee nañu ak nee na ma yéemunu lum gàtt gàtt ak yeewu te am naa ci tuuti te xam naa ne li ma tiim tele la te àdduna bépp ñoo koy jariñoo man day màggalug 2004 dama ñëw jóge njurul fekk daf ne góor a jóob bu ma déggee dana xam li may wax wax naa daara yëpp ñu toog waaye njurul moom mën nañoo ñëw ndax dañoo jege Tuubaa yàlla dogal nag man bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon njurul ci jamono yooyu ngéejaan la ma ñëpp xamee nag waaye njurul jaar naa fa ab diir xel ko mit li ëpp ci sama daara fa laa ko def waaye ngéejaan gi ma mujjee tax na ñu bari jàpp ne ngéejaan rek mooy sama daara te fekk da jaar naa xel xelkom jaar naa njurul xel xelkom daar yu bari la daara yi ma fa jaar bari na waaye mën naa ne xel xelkom rek jaar naa njurul doo ko dem ngéejaan ngéejaan rek bi sëñ bii laa ko fa la mu fekk damaa ñëw di ko siyaare si di dugg ci kees gi rek mu seen ma fekk am na ku mu yónni ay journal yu arab ne ko demal yóbbul ma ko ci biir néegu sëñ ba Badar bi muy xaadim cuun mu seex Béthio cuun boobu ma nga fa booba ci kees gi la nekkoon mu séen ma ne ko jëlal journal yi nga jox ko galas moom dana xam nu mu koy def loolu sëñ bi ma ko wax ma ñëw jël ko téye ko muy journal yu bari benn benn majalla la nag waaye dafa doon yu bari yu ñu boole tiire ko xam naa ñooñu dañ ci doon liggéey ñëw di ko ko woon ñu toog ba mu yàgg sëriñ foo ma fekk mu toog am na lu ñuy wooye alquraaniya ci diiwaani sëriñ Tuubaa yi la bokk da ko daan yor di ko jàng quraaniya bi mu daan jàngee ba tey ni mu mel xam naa ko dafa wert sëñ bi jël quraaniya bi gis genn jaayante gu sëñ Tuubaa jaayanteeg yàlla mu jël loxoom teg ko ci bayit bi ne ma galas xoolal bayit bii ni sëñ bi waxee muy jaayante gu doy war ma gis ci benn baat boo xam ne li ñuy wax damir ci naxwu fi muy dellu ma xool xool bayit yu xaw ma ko ma ne sëñ bi damir bii da laa doon laaj fan lay dellu sëñ bi jël sama loxo teg ko ci damir bi yëkkatiwaat sama loxo di ko dawale di ko dawale ba ci baat bi dellu mu fii lay dellu moom kay jëmm la joo xam ni cëy bu amoon jot jàngale li ma xam ci xereñam ci wàlluk njàng xanaa xamoon ne Serigne Saliou jërul mu baatin képp ku xamoon ni am njàngam xam xereñam rek doyoon na sëkk ñu toog ba mu yàgg mu ne ma wasalati dunia liyal masaaliha wabil masaalihi uaynu saaliha ne ma haazal baytu sarixtuhu wa mallaktuhu li nafsi fi ne phrase bi jumla bi Serigne Touba Serigne Serigne Touba Serigne Saliou moo ko làkk ma mokkalee ko noonu ne ma bayit bii de sàcc naa ko moomale ko sama bopp nii la ma ko waxee de xaasal baytu sarextuhu wa malaktuhu li nafsi ndax Sëriñ ci bayit bi ne li ñuy wooyee baax baaxi àdduna muy masaale lépp lu baax indil na ma ko te mu mel ni ci mujju bayit wa daf ne masaalih yooyu ci laay dimbalee saalihu wasalati dunia liyal masaaliha wa bil masaalihi oinu saaliha sëñ bi ne bayit bi ne bu ma ko moomatit sàcc naa ko moomel ko sa bopp ma ne moomel ko sama bopp ma ne ko ah tajammahatil masalimi kullan indakum loolu moom maa ko làkk ma ne ko ah kon de xanaa day mel yaa ko moom ndax masalih yi muy wax fii de gisuma lenn loo ci mooy mu ne ah alhamdulilah bokk kon ñu toog ab diir biñ demee ba ab diir mu jékki-jékki na ma galas ndax xam nga kuñ ma tudde Serigne Saliou ma ko de bi mu ma ko waxee nag wax dëgg yàlla wax ji dafa ma bett ndax man kat xool naa xool lu tax Serigne Saliou war maa wax loolu man jaaxaloon na ma waaye nag ginnaaw bi it xamoon xamewaat naa ci moom ni sëñ bi xamul gone ku xam lu baax te di ko jëfee ànd kook moom tam xam ne gone guy dox ci lu baax nga loolee rek mooy doy. mën a tekk ba mu yàgg ma ne ko ah am ñu am na ñu ne naqiyun taqiyun saalihun jooji sëriñ Tuubaa wax ci yonent bi moom la ma ne ko am na ñu ne it yonent yàlla saalihu yonent yàlla saalihu sax laa jiital dama ne ko am na ñu ne yonent yàlla saalihu mu ne ma defee nga koom ñi nga xam ne xam nañ sëriñ saalihu ci miin koo jaxasoog moom moom du weddi ay wax déedéet bu ne defee nga ko rek day bëgg nga xoolaat ci defee nga koom ñun xam ñi xamoon waxinam xam nañ ne bu ko waxee mooy wax jooju dese naa mu ne ma defee nga koom ma xam ne kon loolu sëñ bi bàyyi na ko ma ne ko am na ñu ne naqiyun taqiyun saalihun waaye boo waxee loolu dana ma négal ma wax la ci li ma la ci mën a wax déglu leen de li ma la ci mën a wax ak li nga xam ne moo ci nekkoon bokkul li ma la ci mën a wax la ma wax bi mu nee ma ci eh, li ma la ci mën a wax mën a teg mu ne ma bi ma feeñee ci njaareem xam nga nu sëriñ bi def <laughs> mane ne ko ah déedéet xaw ma ko de sëriñ bay wax de ci laa xamee ne kon nañuy nañuy bàyyi di wax naan euh, di wax ak juddu di ko askanal gaañu baax nii sëriñ bi nañuy wax ak feeñam ginnaaw sëriñ Saliou mi nga xam ne doom la ci moom mooy wax ni ba ma feeñee te man sëñ bi wax ci làmmiñam kon nañuy wax feeñu sëriñ tubaa bi nga xamee ne wax na ma loolu ne ma man de bi ma feeñee ci njaarim xam nga nu sëriñ bi def ma ne ko déedéet mu ne ma këyit yu weex tàll la jël noonu la ma ko waxee ak bindukaay xam nga lu mu ci bind ma ne ko déedéet mu ne ma topp sul nii ma wax la ko bi ma jege see ba jege si ko fekk sëñ foo ko ma saani fekk day fekk mu teg ab tabalee ci wetam ay dëgg ciim ne ci xuraani bi ne ci mu jël xuraani bi teg ko ci ginnaawam ci lal bi mu tëdd fa xaw a àndal daju tiim ba mu def benn yër yër bu mu mën a bind dara ne ma xoolal mu bind ci tàpp bi alif na ma lii lum doon ma ne ko alif daa mel ni ku may jàngal baa mu bind laam na ma lii lum doon ma ne ko laam mu bind saat na ma lii lum doon ma ko saat mu bind alif na ma lii lum ma ko alif mu bind laam na ma lii lum doon ma ne ko laam mu bind alonk wicc ko ne ma xam nga lu ciy kii man ma ne ko déedéet mu ne ma sëriñ bi ci kaw la ko maas asaaliha dal di koy joxe kon euh, li may li may wax nag am na am na ci bànd bu ma ko waxoon nee naa su fekkee wax ji dëgg la man la concerné su dul dëgg man la concerné waaye nag lu wér la ndax Serigne Saliou ko wax te it lum bon bon li Serigne Touba wax ci biir Masaalikul Jinaan wa man taarada li sihri lawliya bi naawi wala arudi xataan buliya képp koo xam ne gaaral nga xejj yàlla yi ñu bind mbind nga ne bind nax bi baaxul wala nga ne arud bi baaxul sëriñ tubaa neen danañ la nattu nattu faw dootoo ci jóg kon rawatina nag tuumaal leen kon moo gën a moo gën a tee garaaw ginnaaw fekk luñ bind rek te léeg-léeg bu ñu bindee fa ñuy waxee nga dul xamee waaye la nga jàng ci nax wu wax kalam nit la mën naa dëppoog ba a dëppoog li nga jàng nga wax ca dara yàqu ca kon rawatina nag ñu dem ba woon la ginnaaw ngay topp seen ginnaaw di wax loo xam ne yow wérut waaye nag li tax ma nat sañ koo nettali ku ko jege gis na ma way ay way ba ma wayee way way sax wayuma koon sëriñ bi daa am ku ma doon marsiyal daal ne àll fa haasihil abyaat fadilu jasara allazi tarabba taxta silli seex saaliha moom kooku ne ma lu tax nga wax seex saaliha ma ne ko moo ma ko wax ba ma waxee eh, nu la ko waxee ba ma nettali ko xisa bii ma nettali dana ma lii da tey laa ko mas a xam ma ne ko ah moo ma ko wax de te ba ma ko waxee ginnaaw noonu la ko sëñ Tuubaa bindee woon man man duma ko soppi li nga xam nag moo mooy mooy cant gi kilifa yu bari dañ fee nekk ñu dippee leen ko te sëñ Tuubaa ko ko kon wane na ne turam fooral na ko lool kaweel na ko lool te it bu ngeen ko seetloo ñi ñuy wooyee njabootu sëñ yàlla def na ni xaw ma lu tax ci wet googu waaye koo ci gis daanaka daanaka tudde na ko njabootam ci kenn ci njabootam kon loolu am na lu muy tegtale mu doon jëmm joo xam ni daf ñoo masa nettali ne sëñ tubaab moo leen woo ci njaareem xam nga ku feeñ 1915 ba 1927 kon mel na ni ci saayir say at bëreegul waaye dafay wax ni jotaay bu mu fekkee ci sëriñ Tuubaa lu fa masa xew rek tam fekke ko fettewu ci dara man mii toog naa mu ne sëriñ bi wool na leen te nee bu ma sàndi wool naan nañ ma wool fere yi nee na fere yi moom la woon sëriñ Abdoulahat sëriñ Souhaïbou ak sëriñ Abdoulaye Jaxate nee na sëñ Amsatu Jaxate moo leen di yóbbu nee na benn bi sëñ Amsatu Jaxate daa dem ne sëriñ bi seeti woon naa gone yi mooy fañ nekk yi jàng noonu la ko waxee noonu la ko sëñ bi nettalee yóbbuloon naa leen sax mburu Euh, astaxfurlaa mbiskit sëñ bi ne ko mbiskit bu leen ko yóbboolati dee leen yóbbul mburu ndax mbiskit daa am uro tubaab ndeke ñoom ñi feeñ ginnaaw géej gi sëñ bi dafa waxoon ñoom ñu bañ koo jëfandikoo nga xam ne sax ne sëñ am sa dee leen yóbbul mburu ndax mbiskit daa am uro tubaab maanaam loolu tekkiwul ne bu buñ ko lekk waaye ñoom ñoom la ñu waxoon dañ ko tereet bu ko masaan di joxe da benn doom doo gis mu jëfandikoo ko ci ndax sëñ bee waxoon loolu ci ñoom ñoom ñi nga xam ñoo feeñ gannaaw géej gi nee na sëñ bi da leen a woolu ba ñu ñëwee ndax ñi mujj a woolu ci lañ bokk at mu mujj moom yi yàlla dogal na ñoom gisuñu sëriñ bi waaye am na at moo xam ne ne bi mu leen wooloo bi ñu ñëwee sëriñ bi nee na ni gone yi def def nañ ko mooy tëdd ci wet sëñ bi ba fa far fa nelaw waaye nee na bi sëriñ bi waxee ku nuy tuxal ngir mu dugal ci néeg mooy ni ñoo xam ne yóbbu leen ñu tëri ci misaal sëñ bi nee na pëstéef ki ma gàb gàddu man nee na pëstéef bi daa bare bi ma gàddoo dafa ma doon bëgg a soññ ci xadd bi ndax ci kaw la ma yëkkati nee na da koy gaañi sëriñ Tuubaa yi mi ngi mel tey ci man nee na fàttewu ko te wax na it ni mas naa toog ci benn bank ci njaareem ci kër sëñ bi nee na am mag na ko wàccal gone day toog ci suuf sëñ bi daal ne moonte sama bank yi bàyyi la may tere te bi mu koy bi mu koy nettalaat di wax loolu maanaam maanaam boobu mi ngi ci biir xilaafa gi daal ne sama sama man te bi ma koy tere de sama ba ngi bàyyi la may tere gis nga loolu kon gone war naa mën a toog ci ba ngi bàyyam la bëgg a wax daal ne daal ne mag daf ne ma wàccal euh, toog naa may ci wetam am kuy jàng waaye sëñ bay jaxate waaye nag tëkkatuma ko waaye ma ngay wax daal ni sëriñ bi nit dana la nuyu mel ni safula dara ndax melokaanam te bu la nuyoo doo jëflanteeg moom ba kenn xam ko mu daal di sëgg ne ne ne sëriñ Saliou si Serigne Saliou si nekk fi moom it de du ma ko neel maa ngi toog seen wet euh, loolu day euh, xaw ma lu ma ko niiru niiruwut waaye loolu moom loolu moom bokku ci daal na man mii dafay nit dana ma jub soox ma lool waaye danaa waxtaan ak moom dina ko xam. <laughs> loolu maa ngi koy dégg moom mu ne nit dana ko jub soof ko lool ci ay melokaanam ay doxinam waaye nee na bu ma nuyoo danaa fexe ba waxtaan ak moom ba jub ba mu jóg te du xam li nekk ci sama diggante ak moom te fekk noonu lay mel ci man daal ne ma lu ma nirul sëñ Tuubaa waaye loolu bokku ci <laughs> fekk sëñ Bay moo wax loolu daal ne sëñ bi dana la jox loxo am nu mel ci lool waaye Mbàkke di nga ko teral di ko sagal yaatal ko ba mu dem te du xam ne noonu ngi mel ci moom mu ne loolu day xaw ma lu ma ko nirul waaye bokku ci nga xam ne ñoom noonu noonu noonu la waxee wax na yit ni wax na ñiit ni am na bi sëñ bi tomb mu romb ko euh, mel luy daw noonu li ma leen bëgg a wax mooy jamono yi kon mel na ni mi ngi toll ci war a daw rek ak di jaaban ci kër gi noonu sëriñ bi séen ko boo fekk mi ngi tomb sëñ bi daal na gees daal na bay day gàllankooru naa ci waaye moom meede dana ma bayal ñaareel ba lii moom xel kom lañu ko nettalee daarul alimul xabiir ca toolam ya fa sëriñ xalil sëtam ba waxee woon ne ala mil ila daaril alimi xabirina isa rumta min kay di samaani najaata daarul alimul xabir day ngoog su fekkee ba nga mucc ci pexe yi jamono demal nga tàpp fa naar bi ne ala mil ila daari salaami wa iza rumta min raybi samaani rutuba wax jooju xaw naa niroog ji mu mu muy waxtaan booba day def buy bëgg a waxtaan danaan nañu ma seetal ba xam kenn raxu leen ni nga koy gisee noonu nag sëñ bi méthode tam ci wet googu ñëpp war nañ koo jàng li ñuy wax kii ak li ñuy wax ñii ak li ñuy wax ñëpp fi bokkul waaye am na ñoo xam tey bu ñu duggoon ci biir mbooloo rek mën nañoo tàmbalee wax li ñuy wax te fekk ne am na ku ca misaajam dëppoowut ak loola sëñ bi bu dee wax ci ak tërbiya jaadu na mun na ne mbaa kenn raxu leen ndax wax je ñoom ñoo koy attan ndax niveau bi ñu tollu fi ne niveau kenn ku ne ki ngay yar niveau bi mu toll ak moroom ju du bokk sëriñ bi boo gisee tuubaa gi mu jógee fa dem Jolof xëy na man naam tukki bi la waaye waaye bi mu sancee dëkk bi ñi doon tërbiyewu ak ñi doon jàng bëgg a jaxasoo nee na waxuma sax ñaar ñoo ñuy jaxasoo waaye ñeneen ñi bëgg a jaxasook ñoom te waruñoo jaxasoo ak ñoom sëñ bi nee ñoom dañ leen a war a tàqale moo tax bi mu defee noonu am ku naan mun day xas da jóg way way wolof yoo xam ne sëñ sëñ sëñ la ko way bay wax bay wax naan sëñ bi bàmmeel ba bu ñu bu ñu añee laax bu ñu fa jógee xeet yu mel noonu keroog sëñ bi jékki mel ni tuur ay xéwal am ku ko laaj ne ko ñun day dafa mel ni bu ñibbee suñ kër yi dem fa day mel ñooy gën mbubb ñuy fekki xam nga sëñ bi bu saan ñawal dong yi xaftaan yi jot leen ñawal yoo xam ne day ànd ak forog ak tuwéy ju mag baatub caaye nag lay bañ caaye moom doo ko ko wax caaye sax boo ko seetloo ci wax waxi wolof xaw naa ñagas daal sëriñ bi tuwéy ju mag lay wax nga xam ni bi mu waxee loolu sëñ bi nag loolu yóbbu ko ci àll mu tàmbalee waxtaan am nga ko laaj ne ko ñun de bu ñu demee suñ kër yi day mel ni ñoo leen di gën ay mbubb matelas yi ne ci biir néegi sax day mel ni amul suñu kër yi sëñ bi ne ko fi ngeen doge yoon wi la daal ne ko xanaa xamu ne fi ngeen doge yoon wi ak fee daara yi sëñ bi sampoon Mbàkke Kajoor ñoo yam képp ndax loolu la jamono laajoon dëggal jooju wax de daal ne am na ci ñoo xam ne sax euh, néeg yi leen sëñ Tuubaa defaloon ci daara ji moo gën néeg yi ñu bàyyi seen kër foofu la jamono tolloon daal ne fi ne fii jamono toll ngeen am ay tabax amee mat la ami yére fi ne tekkiwul ne daa yàq dara ci liggéey suñ tubaab bi ndax jamono fi toll daal ne daal ne nag euh, ma wutal leen ay yére wutal leen ay tool dara waruma ci li ma waroon rek mooy dem ba ci àll ne leen fii de mën ngeen fee bay duma leen jox jiw duma leen jox machine du leen jox nag du ma leen jox dara dama ci fi dem du ma leen waddit ndax da ngeen di liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye da ngeen di liggéeyal Sëñ Tuubaa may liggéeyal daal ne daal ne kilo kilomètre yére xam ngeen ko ñu ne ko ah kilomètre da xam nañ ko mu ne waaye yére yoo xam bu ñu ko tàllalee dana mat kilomètre te duñ ko dagg fen daal ne nit mas na ma koo siyaaree daal ne daal ne ma kilomètre la bu ñu ko tàllalee waaye xam nga lu ma ci wax ñu ne déedéet mu ne ma waaye dama la ko jox ngir sa dongo yi ginnaaw ginnaaw daf maa wax loolu kon du ma leen ko mën a mooyeele yéen laa ko yéen laa ko yót daal loolu rek ma ci war daal ne tekk ba yàgg mu ne Euh, tey la lan ñu ne alxamis mu ne ah maa ngi fii bëgg a naaje kat te nit ñi maa leen waxoon ñu may ma altine talaata àllarba ma koy dem sama daara yi ak sama yitte bopp ba mel ni seen bis yi maa ngi ci tàmbalee dugg daal na bërit taxaw maa mi ngi mel maa ngi yàkkal image bi daal na bërit taxaw daal ne ku bëgg lépp dem dangay ngay nangoo yenu lépp loolu sëñ baa ngi koy waxee woon ci dara wala mu xabiir kon euh, am na loo xam ne kat de su ko si mën a ñàkk njàmbaas sëriñ Fallou Mbacke mii moom sëriñ Abdoul Fattah mu sëriñ Fallu dafa ma nettali loo xam ne lu doy war la te loolu tax ma di ko indi xam-xam bu ma am ci loolu la sëriñ Saalu fii may waxee yow ne dëkk bi ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon ci biir dëkk bi donte nuyuwuñu ko laa wax de ne ci ak njub noonu leen xame woon sëriñ Fallu nee na bi ko sëñ bi woo di ko jiital la ju yëmbal musu su koo gis musu koo jox loxo ñu jékki-jékki ne ko kaay wuyu sëñ Saliou dana ndaw le waaw man sëñ Saliou fu ma xamee ba di ma woo mu ne ko ah sëñ Fallum sëñ Fallum dafa daal la wax de mu ñëw euh, sëñ bi ne ko waaw dama laa dama soxla salaaw salaaw bul defee ne yëguma li nga nekk nekk xam naa ne ci lu ci lu baax rek ci nga ne ci ci ci lu ko mate fi ma lay bëgg a yóbbu xam naa ne mën nga faa dem daal ne ko dafa am benn jullikaay bu ñu wax boo xam natt naa dëkk bi ba mu daj yow la sama xel dem seetal loolu ma bëgg nga dem di ma fi jiiteel mu mel ni ñoom ku ñu waxal dañuy mel ni ku ñu yeb xool sëñ mu monsieur Fata mii mu baax mii nga xam ni sëñ Karim bu soxlaa lu jëm ci wàllu diine lu mën a doon bàyyi na ay itam ñëw taxaw ci moo sëñ sëñ sëñ Fallou moom yi nee bi Alaaji Baara ñëwee daa dem ba ca moom mu ne ko sëriñ Saliou de ma ko joxoon ginnaaw yaa fi sëriñ Tuubaa nag delloo si naa la ko mu ngi nii si El Hadj Bara na ko ëskay kon delloowaat nañ la ko bi sëñ Sidi Muxtaar ñëwee mu demaat waxee ko noonu mu ne ko delloo nañ la ko bi sëriñ Muntaxaa ñëwee mu waxee si Muntaxaa ne ko delloon waaye nanga ko fonk kooku moom sëñ Muntaxaa moo ci boole boobu nga xam ni li tax ma di ko nettali sëñ Fallou bi mu xamee ne dara xaw na maa doon dara ci sëriñ Saliou la ma nettali xisa bii na na ma may day am naa ci moom loolu ma ne ko day liñ ne arajulul kaamilu yam la ul kaw na l'homme universel day fees dell monde bi loolu moo la dal sa digganteeg moom xanaa li muy wax mu ne maa ma ne ko léeg-léeg muy wax ak nit ba war a tàbbi ci baram nag sutura si foofu la yem kon xam na lu raw loolu ci mbir mi ma ne ko loolu tax nga toog ndiddi wala fa nga mën a toog mu détecté la xam ne lim la bëgg a def loo mën nga ko mu wol def loo ko kon loolu ñu bari war nañ cee bàyyi xel ci ci ndaw war nañ cee bàyyi xel ci teg tànk fi nga a teg kon euh, Serigne Saliou woo ngoog mbiram a ngoog bu dee bu dee ni doon yare sëñ Modou Mamoun ñu ngi dana ko woon antal lazi an saytana aba ana lawlaaka ma fa zumru un fi asrina fal naskuril mawla alayka bi kaamili yow yaa tax ñu fàtt suñu bàyyi xam nga suñu mënu maam ñëw lu tax wax loolu way da ko way waaye mi ngi jël way ji moomale ko gone yi ne ko gone yii xamatuñ seen bàyyi ndax yow nit nag bu demee ba mën a fàtte bàyyam kam dajeel da koo mat bàyyi rimb ko mat ko lépp loolu tax Serigne Saliou mënoon téye ay xale fonk xale bëgg xale wax naa fii léegi ni dóor nañ gone ak ni alxuraan foore ak ni mu bëggee alxuraan ak ni ko sëñ liggéey liggéeyloo mu ne wal gii ñuy wel gone yi bañ mel ni sunguf danaa wax ñu bàyyi jàngale bi déglul de ndax yërmande ndax ndax yërmande jooju ma lay wax kat man maa ko waxoon ne ko yërmande ji ci ne ci yow daa mel nañ koo doge ci yërmande yàlla sa yërmande ji nga xam ne moom nga moom moom nga moom nga làmboo daa mel nañ koo dogee ci yërmande yàlla jox la ko xutiat bi rahmati malikil xufraan la ko wax dafa mel dañ ko doge ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala jox la ko bi nga xamee ne gone gi ñëw na ak i jooyam fekk ko njaarim ne ko ki ma doon jàngale ma dóor dana bu accès day wax déclaré nañ bàyyi njàngale ginnaaw dañ cee nar a dóor nit ndax daana wax ne jàngale jihaad la ku dóor daw nga loolu man toog naa ba tay mu wax ko di soññee ci ñàkk dóor gi seetlu li ma lay wax de ak fonk alxuraan nga xam ne sëñ Saliou foo ko gis ab kaamil bu foto foto bu ñu ko foto kaamil la yoon li mokkal la ci nit alxuraan kenn xamu nu toll waaye yërmandeem àggoon na foofu waaye nee na gaalam googi mu daan yor la ubbi fekk ok ci kaw sëriñ Tuubaa ne ko maa la digal nga yar taalibe te jàngal leen te nee kayit këyit woowee moom defu ko ci woon kon euh, diggam ak sëriñ Tuubaa ngoog diggam ak nit ñaa ngoog yërmandeem nag àggoon na ci mas naa toog ci njoowaan ak mu yàgg mu daal di lu ci suuf su jóot su jóot bu yàgg yàgg yàgg yàgg ci keesam gi ci su jóot lu yàgg yàgg ba ñu defee ne doot sigi ba mu siggee toog ci njoowaan gi daal ne Abdoulaye Jaxate mu ne ko Mbàkke mu ne ko sama su jóot bi xam nga nu mu tudd mu ne ko déedéet mu ne ko su jóot sukkuri la su jóotu sant yàlla damaa yëgut sama xol bi lu dul yërëm jaam ñi ma di ko sant san boroom allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibina tahirin barke Sëñ Tuubaa maa uyubi wa maa ifaasi man qaadani sukura fi anfaasi maa uyubi